dem. déedéet loolu loolu alaaji gars yi kii ñu euh, réew mi ci boppam comme que boo waxee nekkub gone alaaji ñu naan la yéen amagu leen expérience. xale yi amaguñ expérience <laughs> xale yi amagul expérience waaw ah, bu ñu waxee loolu la ñuy wax dañ naan xoolal. booy amaguñ expérience su état man xaw ma lan mooy expérience su état. ah. <laughs> te nit nekk président. ah. mani <laughs> kii nga xam ne ñun daanaka ñun ñun mooy suñ chef moom la suñ kilifa yi daanaka jox bopp gone gii judduwul 77. gone gii ci réew xonq noppi yii gone gii remplacé Hollande Macroni borom capital ba. borom mag ba ca lumière ya borom France mu alaaji kooku kooku kooku kooku amul ñeent fukki at ñett waaw moom ana lan mooy expérience am ah, alaaji. maanaam nekk ci réew mi bëgg a avancer. amay ah, dee ñu naan ay mag mat naa bàyyi ci réew yooyu yëpp xam nañ ko mais alaaji yenn âge yi doo ko am ñu naan la kaay dem armée. kenn reyu leen de. kenn dañ leen a rey reyuñu leen di. kenn ñaanu leen feebar it di. te defuñu leen ne tubaab yi jël leen di leen sànni ca àll ba. kenn ñàkk ñàkkut a doyloo seen xel di. déedéet déedéet lu ñuy def sax nag jiital leen nag faf. ak bokk ak ñoom lépp ci mbirum àdduna. ak bokk ak ñoom lépp lu fi ruus. Ah. waaye nag boo leen bàyyi ak lépp ñoom dañuy accaparer lépp lépp bàyyi kook ñu ñu ñi war a dund ñu toll ci jamono dund. te xoolal gis nga laaj gis nga liy feeñ ci li li liy feeñ nii ci ci kii ci ci suñu institution yi. Mm-hmm. ci kër yi la tàmbalee de. Mm-hmm. am na maire ak ay paa yoo xam ne ba léegi ñoo yor seen dépense doom yi. Mm-hmm. <laughs> déggoo ma de. te dara sa te doom jee joxe dépense. waaw mais taañaañal leen rek. waaye ñi taañaañal leen. waaw ñoo koy séddale. bari na fi nit ñoo xamante ni alaaji seen doom am nañu ay moyens jënd kër ak lépp mais xoolal. xoolal dañu leen di imposer biir kër gi par force ak seeni i jabar neex na xari kër gi doo ko génn wala nga indi sa jabar sax sa bàyyi ne la non non non ñun il faut ñu dem gaayam gi ngi ne wutal la fa sa wenn mbokk léegi léegi yooyu nag moom moo continuer nii continuer léegi nag waa ji nga xam ne moom dafa juddu après euh, les indépendances. ba mu dikkee. nit ñi nag dañoo amoon yaakaar ne système boobu ñoom Senghor ba woon fi. Mhm. kii moom dana ko dakkal. waaye kii moom bi mu ñëwee. Diogaye mhm. moom moo gën a bëgg sax moom génération ñoom Senghor bi la bëgg. ñoom moom moom ñooñu la bëgg moom moom daf leen a bëgg. moom fii la leen def li Youssou Ndour naan ana foo leen ma def fii <laughs> mais Diogaye ci boppam moo bëgg ancienne gloire yi. <laughs> non mais attends. gañuwul gañuwul match de. ah non xanaa muy jaamu yàlla alaaji ci boppam jaamu yàlla jaamu yàlla. Mm-hmm. alaaji. Hmm? mais taamu nañ ca borom karaw yi ñuul yi waxuñu ngay dem ca jàkk ja ndax ñàkk pexe de. islam waxu loolu de am na ñoo xam ne dañoo dem ba amatuñ fu ñu jëm. Mm-hmm. am juróom benn fukket ak juróom-ñett ñii juróom-ñaar fukket ak nangam. amatuñ fu ñu jëm. ñuy dem ca jàkk ja ak jumaa ja. soppi seen bopp imaam. soppi seen bopp imaam moo tax loo ca gis xoolal. Mm-hmm. màggee wuñu diine moo tax xeex lañ nekkee ca jàkka jàkk jumaa ja seede yàlla xeex. xeex te bu ñu juumee kenn duñu mën a duñu mën a baaxalaat julli gi. ba pare xale yi xale bu leen gàgganti. ñu ne leen amoo yar. ok xalaatu ko. amoo yàq mais waxtu wi nag dëgg-dëgg yow nan ngay jëlee ko retraité alaaji hmm. jox ko poste su ko retraité parce que y la pression populaire derrière. cour suprême ñi fa nekk Badio Camara waaw Badio Camara kañ lay dem Badio Camara kañ lay dem Badio Badio Camara kañ lay dem moom chaque jour pression bi nii di ko delloo ginnaaw te nit ñi xamee wuñ ko woon dund ak pression Covid bii li mu wane dafa bari bi hmm, wane dafa bari xeebuñu fi benn paax mais nañ waxante dëgg nag. waaw boo doxalee de. da ngay njukkal da ngay njukkal sam réew ni nga koy njukkalee ah, mooy. boo defee la mën a sant ba noppi mu ngi la jaajëf nga dem jël la mu la joxoon mu jox ko keneen. keroog bi may def seen jotaay ak Ablaye Wade ca Paris mu jékki-jékki ne ma Senghor ba xam ne lii lii lii may taxawal nii. Mhm. bu sottee du baax. Mhm. mu ne day tas PDS. waa nee na Serif xam nga kan la yónni ma ne ah, mu ne ma Moustapha Niass était son chef de cabinet keroog Moustapha mii la yónni ci ci ci man ne ko waaw Senghor dina ko tas waa na ma na ma may tuuti. léegi ma tasal ko sama bopp tas PDS balaa gars yi naan Senghor dictateur la ak yooyu waa alaaji ña nekkoon ca cabinet wu Senghor ñooñu àdduna yi dox di dox di dox ba Senghor di dem indi juuf ñoom ñuy kaas mais bëgg nguur tax ñu toog nangu loo xam ne bëgguñu ko bootu ca ginnaaw gone ga Diouf l' ancien préfet l' ancien gouverneur gouverneur dégg nga loolu alaaj mm-hmm. Abdou Diouf moomu it Ablaye yàlla dogal ñaar fukki at gannaaw ab Ablaye daaneel ko ca 2000. ba muy waaj a daanu it ma ngay préparé ndem si yàlla ga tanoor ñooñu it ca ne jam ba ñu sengoor jamoon ñun duñ ca nangu bii moom duñ ko def moom bii duñ ko def kii dañ ñu ko buux mu bëgg ñoo buux keneen ñu taxawal seen parti. seeni parti seeni parti ndem si yàlla jiboo ak Moustapha mii tey gars yi dem élection jibo moom delluwaat sa këram ne pour montrer aux Sénégalais que l'URD et la clé du changement il faut voter Diouf. déedéet Niass nag avait seize pour cent il était le faiseur du roi faiseur du roi la woon mu dem fële léegi nag poste premier ministre ba feeñ déggoo ma de ànd naa ak Ablaye le socialiste et le libéral maanaam ay idéologie yoo xam ne alaaji bu jaaree yoon ba jaar yoon suppa kànja lay mujj ne ndax kii moom pour tous lay woote kenn nag chacun pour soi déggoo ma de ñu lëkkaloo acca génn nga ca Senghor dugg nga ci Abdou léegi yaa nga ca Ablaye <laughs> dégg nga bi dëggal di ñëw xale yi taxaw jàkkaarloog ñoom mbay sàkk kii falu nii tey di laaj indépendance alaaji juddoogul boole ci nag waa di jàng waa di jàngale lu am solo parce que am na ñoo xam ni eh, bi ñu bi ñu génnee école ba bi ñuy eh, ba bi wàdd di falu xamuñu woon opposition grâce à wàdd moo tax ñu jàng opposant oui dégg nga mm-hmm. laay toog nga ànd ak moom ba mu jeex xale bii ñëw. Mm-hmm. nga xam ne bi ngeen di politique gën a seegul àdduna ba ngeen di jël indépendance <laughs> fii ci ñoom Mamadou Dia ak ñoom lamin dégg nga loolu. ak Léopold. Lamine Lamine Kouré Gueye. alaaji ñoom Lamine Kouré Gueye yéen mën ngeen ñoo nettali yéen histoire Lamine Kouré Gueye ba mu jeex. ah ñu ko doon ñoo bokk ak jamono. waaw loolu laa wax. yéen li ñu xam ci Blaise Cess néew yéen a ñu ko nettali. xanaa gudd fan ak gàtt ba fi nekkee. <laughs> déggoo li xam ci Blaise Cess néew ko nettali. dégg nga kooku encore ñiwaat ba tey. bu doon dañ naan ay conseil la ak yooyu comme dem si yàlla dans ko noonu pale ñun daal ànd nañoo ak waa ji gagné nañu dañu koy xelal. waaye ñu ñu ñëw. ni la jàkk jox law institution. <laughs> ne na ciix ca kaw. te kenn du wax ku wax say militant dal sa kaw. waaye lii mooy lan ñooñu defuñu dara lépp jogoy la. lu njiit Macky mooy njàkk. moom mu judd après indépendance jël ñoo xam ne c'était avant l'indépendance. <laughs> lañ nekkoon ci nguur dénk leen suñuy institution. Macky lañu war a waxal. waaw. <laughs> te te fonction bi. di di di fayeeku ñun ah. keroog ba ma gisee ñu naan Aminata Tall à service son pays xaw ma 45 ans xaw ma lan alaaji. <laughs> Ablaye bi muy créé parti bi 76. <laughs> ñeent fukki at ak ñeent ak ñu ni tey de. te Ablaye moog ay gaam daan nañ dugg ci nguur di ñam ak génn te jamono jooju moom ñoo aminte la ak ñoom Ousmane Ngom. déggoo ma de ñune ne ñu ne yow servir nga réew mi ñeent fukki juróom ñun ñi toog ci rajo yi bëgg a servir réew mi sax amaguñ ñeent fukki at ak juróom alaaj yow ñu ne yow ñun ñun amee ay dara ñun avant ñoo gane si àdduna ba tey yaa ngi ci appareil yu état. ba ñun ñii li ñu dese léegi matatul ñaar fukki at pour ñu retraité. Mhm. nga ne ci appareil yu état waa doo dem gis nga alaaji ñam ko xamul seppi sam loxo nag. dañ koy seppi. et puis et puis bu ñu nee alaaji servir na sànni servir na réewam sax ci nan la ko ci nan la ko servir. xam nga caabi ji ñu lay jox fa nga servir. dara dara ku ñu ko jox ku ñu ko jox dara seen serviru dara dara seen serviru réew mi yëpp du dara. Senghor ba tey alaaji dara dara servir réew mi ba tey dara. ñeen fukki atu socialiste yi ñëpp teg nañ ci bët nan nu may bu ñu waxee ñu ne moom lañ faral waaye li fi nit ñi tëgës ba tëgës néew sax mu xaw a niroog mbirum tubaab yi lée dégg nga loolu ñaar ñu mujj ñii la mm-hmm. ñaar ñu mujj ñii te luñ fi defal lu baax rek def nañu juubal bopp ay tojaange <laughs> dëgg la kon amaguñu chance dëgg la jëlal Ablaye kenn du ne fukkeet ak ñaare mi liggéeyul ku fi def aéroport beeg ak ak ak ak ak autoroute à péage yeeg ñoom seen. Ila ba ba Ila Touba. ak Grand Théâtre du moom. Ah, du moom du moom. c'est les sept merveilles. waaw du moom du moom. waa limal léegi scandale yi limal ñu scandalu milliards yi su wàdd nga xam ne moom ci boppam jël na fi ay ministres jël fi ay DG tëj leen ci kaso bi Macky kenn du ne deful inauguré wul Ila Touba deful yeneen ak yeneen. li jëm si ay moteur avion ba pex bi ñaar. waaw waaw kay <laughs> Macky kenn du ne deful de waaye léegi jëlal moom Macky juróom-ñetti attaques néew yu mu def fii tojaange yi ñu lim benn par benn temps yi sax dañoo mel ne dañoo jëfur yéen yéen temps yi yéen da ngeen a war a ndëpp mais ñoom temps yi daluñu seen bopp. <laughs> ñu dañ leen a wër ndomba ndengeñ leen caxabal leen suuf la ñu jëm dëgg la fu ne la kurpeñ ji jóge hmm. licence de pêche. littoral les terres mooy la boulimie foncière là ah rapport yi nga xam ne génn nañu suu Macky épinglé ay nitam alaaj ci ay milliards waaye fukki at ñeen fukki atu socialiste yi sax góobu ne dundal nañu loolu ah waaye yow lii kenn xaw xoolal tey enquête bii nii direct kii Times génnee Dakar Times mm-hmm. benn étude bu benn femme def. Mhm. jamonoy socialiste yi. Mhm. ba ci Ablaye Wade. Mhm. ba ci Macky Abdou Diouf Senghor. cette boulimie foncière la mais président de la république yi ci ñoom lay jóge di ko jaaree ci seen i directeurs généraux impôts domaine ak seen njiitu cadastre. ñooy toog fi ñu toog di décider. ñoom ñooy déclassifié yi soo ne littoral bi kenn du ko laal kenn du ko laal. décret moom moo mën a ubbi. pour ñoom ñu mën a def dara. ñoo faa yeggaat. waaw waaye yow ndeyu mbi gi yow sa bopp yow yaa ubbi àll bi mboy bi jël lu la neex di jox ñoo xam ne alaaji nit ñu leen gën a yayool fop ñoo fi ne luyaas di leen rey. man ñeenti hectare na démb ma naan ñetti hectare nangam. benn waaye bu ñu naan kuruma corrigé ma yónnee ma décret bi dama ko yónnee photo dama say quatre hectares et quelque. la Macky Sall jël ci taatu géejawaay yi jox ko jox ko cinq hectares ñu jël ko jox ko benn waykat. bu dëkk fii ci Ndakaaru. nañ ko jox waykat yi ci géej a way ñenn ñi nga xam ne bu ñu añee dund reer ña nga ca aar bay bëgg a dee sonn nañu fukki weer ak ñaar ay nit nekk ci ndox créé ay logements sociaux. ku am xaalis sax ñu koy joxe. ku am xaalis nan lañ koy dimbalee alaaji ah waa man ku am xaalis ñu koy dimbalee. nouvel ordre national la. nouvel ordre nouvel désordre national waaye. nouvel waaw pour la dañ koy fàtt. muy tabax. muy tabax. R plus R plus 15. ak ma koo fotti. <laughs> teg ko fan. Macky ci boppam la nit ñi war a taañaañal bañ koo wàcc. te yow mu wóor na yow dund nga juróom benn fukki non ba dañ koo jox ak lii sax mu mu jiite fi ab kuréel bu mag. mille milliards. six mille milliards six bii la six mille milliards alaaji. Mhm. juróom benn junni ci milliards. presque budget wu Sénégal ba muy ñaar ñu tuumal ko nit mu bokk ak yow ndey ak ne ci mim réew <laughs> bu feebaree sax ci lalu hôpital dañ ko faa war a fekk te te ñu ne kenn du wax ku wax ñu song la naan dañ lay jéem a saaga ñun ñun suñu ndodd yi nga xam ne ñun danoo dan ñun léegi danoo dërkiis jamonoy waat daba léegi ñu ngi jotee message ak ay saaga li ñu éditoriale bi daal alaaji góorgóorlu bu mu soppeeku point sëñ Abdoulaye nee na képp koo xam ne ay kàddu yu démbam daa méngoo jëfi tayam ci ñun la bokk jàppal waaye koo xam ne ay kàddu dem ba jëfi tayam daa safaanoo hmm. baal mu dem mooy transhumance gi nga gis daana wax itam nii bu nit ñi ñëwee sukk seen seen seen seen kanam li hmm. ngeen leen wax ren hmm. déwén bu ñëwee nañ leen ca fekk ah ndax li lem wóom lemalum xel ah seen seen wóom yi la ñuy lem de waaye seen xel yi lemul ñoo xam ne li ngeen wax baax na boo boo boo dindee la woon daaw ak ren alaaji xanaa xamoo da ngay ridicule ñàkk fayda ku la yabul woon yab la Amadou Ba mii nga xam ne nekk na parcelle Moussa si bu ñëw mu duma leen bu déggoo li mu ko wax. dé démb la waa parcelle doon séddale seen lekk gi. ah bon nee na ko Moussa li ma lay xelal di la ko digal mooy li ma diggal sama bopp. mooy. yemal fa la président yemloo. bu ko weesu. <laughs> waxal li la président wax <laughs> te wuy ma wuy ma alaaji. te wuy ma te Macky bu mu la gën a gore. kon ana xalifa ñu ko ana xalifa Sall mi ko defoon maire maire yu bëree bëri bu ñu fi demoonoon seen bopp te demuñu taxawu Dakar duñ gañe tous ah, riirum taxawu dakaar gi xalifa Sall gee leen def ay maire yow yow Amadou Ba yow yow yow lan moo tax waxoo ko ne ko toogal fi nga toogoon bu la xalifa gën a gore nga naan ko Macky bu mu la gën a gore <laughs> Macky lan la defal mussa si lu dul fekk ko mu gañe nga ne ko bu la gën a gore Moussa kaye wàcc àndam dem fekk leen yéen waa APR seen ànd moo tax luñ ko ca def ak luñ ko ca wax na jël. déet man ka deful dara moom daa fekk géej gu bari ndox loolu mu sànni mbaalam. waaw jën yi tëb tëbal. jën yi tëb tëbal. Macky kay jën dugg ca mbaal ma nangu. Macky Macky moom digganteem ak transhumance yi sax li may wax alaaji moo jikko ju bon lay dooleel. jëf ju ñaaw lay booleel ndax wàllum transhumance wor mënoo ñuy jiite di ñu jàngal siraatal mustaqim di ñu jàngal yorin gu baax ba pare di encourager wor di encourager wax waxet di encourager jikko ji jikko ju bon te ñun yow ñun ci yow li la ñuy roy Macky moom foofu laa koy foofu lañ koy jamee ci transhumant yi mais yeneen yi des moom transhumant yi alaaji kenn du ñoom kenn duñ amuñu jom wala Serigne Mbacke Ndiaye photo bi ñu jël barki démboog tey bu tayee ñu def ko ci suppu kanja bu subaa ñu def ko ci maafe ñu ne tey yow nga yor sab doom mu ne ci ñun réew nit ñi xam ko dimbali leen ñi ngeen jur ñuy jaajëfal laa jàmbal ay dara jaa ngi jëm mbokk yi caa nekk Zik FM. doom yi sonn nañ trop. <laughs> ci kanam tuuti. barke yonent bi daañu continuer <laughs>